sama dama ñëw fekk dama ñëw fekk maam tànk bi am na gaañu gaañ ci baaram tànk bi quoi dafa am benn genre pax fa xóot quoi fii dafa xóot comprendre nga poj bi dafa dagg fii dañ ko dagg bu xóot moom it comprendre nga yaram bi boo xoolee mel dañu doon ceew soo waxee daan la noppil comprendre nga xale ni nga ko dooree ni nga koy ni nga ko dóoree ba ba ne ci coono amaana bu yeewoo ci loolu ci loolu lay nekk di di di kii quoi moom ku wax ci affaire bi daan la noppil allahu ahlam yàlla rek moo xam. mais nag dañuy santaat yàlla bu baax sant suñu yaakaar muy Serigne Touba. Mhm. moom démb nag rakam bi wax na ko maa ngi woon déglu démb du ma tontu ci question loolu rakam bi maa ngi ko dégg mu naan ay ponkal comme moom ni mu ni mu ponkalee moom ku leen téew ñett doo leen ci oto bu ñu fa defee trois jours nee na maanaam ñu naax saay kon ay xale bu ñu nekkee foofu xam ne ay quatre ans am cinq ans. kon bu nekkee ci oto cinq jours lu ma war am foofu hmm? kon léegi lan la yàlla doon leeral foofu bu léegi yàlla ay wane kattanam de bu léegi yàlla mooy wane kattanam